3S4. dangaa sañse Serigne da waral lool. mais xam nga yow xam nga man da nature man lii sama nature la quoi. waaw ah. dama bëggal sama bopp bëgg lu baax. waaw. Ah. Eh, te ndaw da nga war bëgg lu baax. waaw ah. te bëgg lu baax si jaamu yàlla la boobu. dëgg la. képp kuy ndaw li la yàlla wërsëgalee as tuut bu dee junni. Hmm. maanaam jëlal deux mille francs yi def sa yaram. yeneen tubaab yi nga xool sa yaay wala xool sa ay mbokk xool si baaxee. Hmm. gis des nga doo ko lekk. Hmm. parce que xale yu toll quoi. te ñaan waajur bu am solo lool si doom. waxal bu baax waaw aussi nit. sa comportement. bi la nit di gisee di la naw. sa comportement bi la nit di gisee di la xeeb. rawatina si milieu yi noonu boo fay def da nga war a habillé wu. sol li nga xamante mu rafet lay doon mm-hmm. même lu bees sax mu nekk li nga xamante ni c'est attirant quoi mm-hmm. ba ñu lay xool ñu daañu xamante ne kii carrément macha allah kii sol nga xamante ni saa macha kii am na fi place mm-hmm. mais peut-être fois nga gisee nga xamante ni doo comprendre yor adduna ak li ci biir mais doo tagga feeram loolu xeeb sa bopp bàyyi xel si loolu ku loo xool li nga sag tey kaal nga xam ni roy bi loo pire que biscuit dem soos te mburu ñaar lay bañ uh-huh. muy asib uh-huh. ak lan mburu ñaar lay bañ asib ak lan ak lan ah laaj naa la ko xam nga ak lan laajte la. ah waaw waaw Leuz. waaw bi jeex na nga gisee combat bi. combat bi. Boy Niang Modou Lo kii laa laaj. taxawal taxawal euh, man Boy Niang ak Modou Lo ba ma koy laaj nga gis làmb la ça veut dire que na ma bëgg a uh-huh. ma bëgg a sërëxal. Uh-huh. parce que képp kuy décortiquer làmb si Sénégal. Uh-huh. fii ci réew mi ñu nekk. actuellement là où la il est le meilleur loolu yàlla suñu borom def na ko. Mm-hmm. moo xam nga bëgg. moo xam nga bañ hmm. moo xam làmbaloog la muy def neex na la moo xam làmbaloog li muy def neexu la hmm. mais yow boo wéetee si néeg di nga xam ne làmb la moment bi nii il est meilleur képp kuy décortiquer làmb jamono ji hmm. espéru làmb mënoo waxte doo doo la il est le il est il est le premier the number one waaw trophée bu amoon waaw gore jox ko barki alxuraan pour ëllëg keneen góorgóorlu ñu jox ko très bien mais pourquoi pas. Hmm. waxkanu làmb yëpp bu bu làmb si jaal ñu xool kan moo si gën a am pip kan moo si gën a nekk. ñu hmm. jox la ko. Hmm. wala bu léegee keneen dina góorgóorlu. maa la wax loolu yow mosoo jël trophée si décortiqué mais man jël naa si ay trophée trophée si décortiqué. loolu dafa am solo làmb tamit dafa am foo xamante ne dafa toll. maanaam dëkkante bi nga ñëw taxaw plateau. kii ne Franc nekk nii. beneen mbër bi nekk nii hmm. ñoom ñaar ñëpp yëkkati loxo xam nga loolu dëkkante seeku la hmm. Hmm. mais di kàddu puno policier yi di leen dóor loolu tamit war nañ kaa ratifier du dëkk affaire bi léegi lépp affaire professionnelle waaw nit ñi tamit nekkuñu ay mbaam yoo xamante ni ku toll ni faraan yi ñet ay 32 policier wër ko mën nañ kaa dóor mu dóore mu yàq suñu laam balaa caag ñu defal leen benn case boo xamante ni kii dëkk fii lay taxaw keneen ki koy dëkk taxaw lës gisoon ne charme làmb léegi dafa ñu def comme tableau comme comme gars yi bu ñuy fubal noonu ñuy waxee classement bi mm. par ñaari jour ñaari attaques yi noonu ñu leen defee affiche ci kanam mm. ñu def ñii ñu photo mm-hmm. ñu dugalaat ñeneen ñu photo wu léegi ku bëgg a dëkkante di nga joxe douze mille cinq cent pour promoteur bi mm-hmm. boole la si classement bi andul foogoog mais wuy ma waa kii dañ kii fu réer waaw kii lamb fàtte na ko yow kii demoon ba si ta kii daan Siteu. bëreeg Ada Fass. waaw daan Ada ay ndaanaan bëreeg ay champion. lamb eh, ko fàtte mais du yoon lii laa a ban buntu nga bëgg. bàyyil après nag lañ ko. ah kii de eh, pare. Eh, lamb kay lamb kay lamb kii mënugul dem. am na fu mu ne. ak ban buntu lay fëgg. ban buntu ngay fëgg. waaw ñu ngi toog di liggéey Mhm. Euh, liggéey bi yàgg na chaque mhm. jour nit ñi loolu lañ lay wax liñ lay rapproché mooy Onde kañ ngay am combat kañ ngay am combat mhm. mais dañoo ñofee suñu live ba egsi fii kon li ci def dañ ko saax-saaxee quoi ndax bëri na nit ñoo xam ne nii xam nga dañuy dañ lay nooyee ñu daan fooyee làmb mais ñu dem ba commencé cee dégg lu ne. Mhm. jël ko def ko jël jël suñu matuwaay na mhm. waaw parce que daa am ñoo xam ne nii fa la ñu ñoom la ñu làmb booleel ñu war a mhm. bëreeg ñoom. am na suñu morom yoo xam ne nii dem nañ bàyyi ñu. mais yaakaar naa ne ba tey ñu ngi ci course bi dabi leen weesoogul. waaw waaw doole ji jagul xam-xam bi jugu fa. dab leen jotul. jab leen passé wul mm. ndax saa yu gasoil nekk si oto bi boo këddee day dem yoon te nit dafa nekk koo xamante ni mm. nit dañ koy jàppale mm. si ay mbëri ñoo war a tourné di xoolante seen moroomu nawla yi parce que am ne sa morom mbër bu am loolu baaxul mais de xoolal bu la neexee butéel mooy kat ma xam nga gars yi léegi ko tudd mu wut waaw noonu lay demee bu leen bañ may ba non bàyyil ma tudd ma am la xam nga ma war a bëreel mais mais la pour année mooy làmb eh, la waaw jeex mooy mm-hmm. ondu dafa nekk champion bi nga xamante ni maanaam dafa marqué empreinte ci làmb ku bëreeg Ada Fass bëreeg ay Siteu bëreeg ay ndaanaan li nga woo si mbapat si àll bi kenn xamul lu mu toll mais tey problème am xam nga lan mooy problème am lan ma bëgg làmb dama bëgg laajte lan mooy en fait. staff la presque ñamal na la si. ñoo ñëwul. moom la maanaam exact lan la. presque ñamal na la si. parce que ñi a bëreel. waaw duñ bëree ak yow. Hmm. te ñi laaj da nga raw. waaw loolu koo ko tàpp doo bëri. mais champion mel moom est war na toog ay at hmm, hmm. loolu la CNG war a génne. mais bàyyi leen monde bi ngeen jël di jox ay ku am quatre défaite. dëgg la moom mu am waaw nga ñëw génne benn boy du oui loolu moom mais làmb sa làmb ci amul léegi kumba amul ndey. kii làmbam mi ngi yàqoo si nga fay kële. Mhm. dem fay ko lu fala làmbam commencé. fay 3 millions fay la 1 fay la 1 fala non fala yàqoo kay. Mhm. muy mu dëkk rek Pikine. waaye Pikine am si lu ñu te moom mi te moom mi fu mu toll nii. naa xelam mi si mi ngi si kii bi roi ah. xelam mi ngi si mais boo ñaa mudloo combat bi waaw booy ñaa Modou ak Ama Modou ñoo yem rek. Mm-hmm. parce que man boo gisee sorties yu bëri bëgguma woon di ko def. Mm-hmm. loolu noonu saa mi bërki démb woo na ma. Mm-hmm. mais amatuma woon di envie def ay sorties parce que ñi may gis ñuy wax ñëpp ay dof lañ. ay borom xam-xam waxuñu quoi. Mhm. te samay mbokk dof du ñu wax may waxandoog ñoom. Mhm. man bu may wax damay dof yi dañuy noppi nit ñi di wax may wax nit ñi di redresser dof yi. Mhm. mais dof yëpp buñ jugee waxandoo. waaw moom mooy loolu quoi Pikine nag li ko tas loolu ci la bokk. kon jàpp nga ni tas. non ñu warta wax ñooy wax. ñaareel ba mooy dama la wax benn affaire boo xam ne boo ma seetee naa la ko tojal. mooy Pikine mbëri ñoo gën a seytaane supporter yi. moment bi toll nii waay barke Serigne Saliou. mais on mbëri ñoo gën a seytaane supporters yi parce que mbëri li ñuy wax supporters ak ñoom li ñuy def bokkul bokkul waaw kon gis nga premier ma tegal foofu sa tajal ma loolu tajal ma loolu on ngi noonu gis nga làmb ñoo ko déggandoo làmb dafa dafa leer nañ maanaam li information détail li fànk kenn du ko jeex nee na Pikine mbëri yee gën a seytaane ñi nga xamante ni ñooy supporter yi noo ko jàngatee non mbaam xamul sa dex ba fas xamul sa dex ba mais munaat hmm. bi mun na xam sa dex ba parce moom day naan ba sa ba hmm. hmm. parce que ñoom tamit Pikine normal rek a ñu arrangé Pikine nekkaat seen benn moo ñu arrangé kon moom comme que dute na te la woon am na fu mu teg boo ko gisee dina la wax fi mu teg mais mais mais naa Fouta Fouta mi moom tamit aussi eh, ndaanaan la am na combat yi nga xamante ni na ko tëgg mais yàlla suñu borom def na combat mujjul sotti mais Onde le Fou Fouta Onde tëggal ko combat ndaanaan nga ku sulu ku ne mu suli la non ndaanaan la li tax ma jiñ ko Onde le Fou mais damaa gis si Onde le Fou ñu dégg ko loo xamante ni mm. pour nga encaisser ko day yomb yow bi si bi yem ñoom buñ la ko iñaanee duñ nit. ajalla bi ko ñaan dara sax mu teg ba. lamba ngi nii mais Fouta waxal. lamba xam nga wax ak lamba la. mais lamba la taxawal ondul bi lamba la. non mënuma wax ni kii Serigne. déedéet taxawal rek mais ondul fu toog fan yi ñu toog ñu waxtaan baax na lamba naa mi ngi noonu kontaan na maa ngi ñëw aji njam ñoo ngi dégg doo Kalidou yaakaar naa gis nga kaddu yi nga xamante ni ondul fu jot na baaxee ko ñi nga xamante ñooy internet seen làmb TV waaye gis nga làmb loog moom tamit macha allah bu andul fu waxee am na jàngat bi nga xamante ni na ko souligné moom euh, làmb loog moment boobu si la Fouta production moom tamit daal di ñëwee ñu koy proposé mu tëggal ki nga xamante mooy andul fu euh, combat bi nga xamante yaakaar naa en ce moment Sénégal war nañ ko xaar parce que yaakaar naa andul fu war na mën bëri ay talfa Kalidou hmm. Kalidou mbëru mbëru mbëru mbëru kii bi mbëru kolobaan bi moo kankang moo kankang ëndul fu ñu war mën bëri bëri na guy gi ñoom mbay guy gi ndax si Ada Fass la jógee noonu mbay guy gi sax mën naa ni xaw na ko kii tuuti uh-huh. mais ay ñoom Mor Kankan ñu mm-hmm. ñëpp ënd fa woon na mën bëre ñoom lamba ji nañu bàyyi kumba am ndey kumba amul ndey onda mm-hmm. mbër lan daanaan la moo daan Ada Fass moo daan Ada Fass Ada Fass yi ngay bëre ki nga xam ne mooy guy gi waaw waaw kooku woon daanaan la uh-huh. buñ ko fay xale la mu bokk si lamba nañ ko jàppale uh-huh. lamba yi nii mm-hmm. ñu ngi ñaanal ñëpp a jàmm uh-huh. at bii yàlla nekk atum naataange at bii yàlla nekk atum xéwal wala daldu at bii yàlla nekk atum sutura di ñaanal la PDG borom seen lamb TV abo sañ sañ sëñ Fallou Seck eh, mais sëñ Fallou borom tax Touba xayra kenn du moom Chéri Bana. Uh-huh. ak Maam Jaara. Uh-huh. moo mën moo ëpp doole. Uh-huh. waaye Kalidou. boo jékkoon di baale. ndeysaan. ah yaa ngi dóor sa ay morom. kontaan naa si yow. jaajëf. sama jabar léegi ne jëlal ma ko jëlal ma sama jabar jëlal ma sama jabar ji mi ma sama jabar mais lamba nañu. non mooy yoon li dugg naa ko yaakaar naa. mooy yoon moo xool ki nga xamante ni mooy Tidiane Faye. ak Nandi Fall ak Nandi Fall. ñu xool ñoom ñaar borom xam-xam. ñu xool ñoom ñaar fan lan ndam li dem. ñaari borom xam-xam la Nandi Fall moo war a soññ boppam kenn war a kaa kon kon nañ dugg nañ dugg ñu xool combat bi. waaw boo ñaaxul lool lan bëgg nga ñëwaat boo ñaaxul lool lan bëgg nga ñëwaat si. waaw boo ñaaxul lool lan bëgg nga ñëwaat si. kii da lay bëgg kii da lay bëgg kii da lay bëgg. kon seen làmb la gaa yi noonu de. dama dama dama dama dama Modou Lo. Modou Lo nga xam Modou Lo. waaw waaw maa ngi taxaw stade waaw waaw kon mi ngi koy confirmé kon yow Modou Lo. yow li nga di wax yaramu neen boo ko defoon moom